monsieur Gallo Ba moom bi mu fi ñëwee ba léegi daanaka euh, mbir mi dafa taxaw. Euh, ay techniciens yi nekk foofu nga xam ne jafe-jafe yi nga xamante ne bi am jànkonte nañu ak moom yëpp ci wàllu réforme statutaire yooyu ñoom ñoo ko indi ndax ñoom ñoo soppi la nga xam ne moom la ñu digaale woon ak nguur gi ba yóbbu projet de décret boo xam ne dañ koo falsifié ci conseil des ministres ba loolu moo tax ñu jàpp ne moom déglu bu mu leen déglu te dégluwuñu ñun ba xam ndax ay arguments yu pertinent moom ñu jàpp ni kon moom la nga xam ne moo waroon nekk taxawaayam wàcc na ko bu yàgg amaana sax lañ ko dénk attanu ko looloo tax ñu yëkkati suñu kàddu déposé préavis le 19 octobre bi passé wax gouvernement bi ne président de la république jëloon na ay matuwaay joxe ay instruction pour que réforme yooyu ñu mën ko wéyal ba mu àgg juróomi at ngi nii nag ñuy xaar boobu ba léegi dara sottiwul su mëntu nekk li syndicat war a def pour que ay mébétam ñu mën ko jël sérieusement en compte incha allah pare nañ pour def ko di ñaax euh, ministre de la fonction publique mu jël ay responsabilités ndax euh, ministre de la justice bi nga xamante ni moom comprendre na problème bi li mu doon def na benn projet de réforme boo xam ne bii euh, jébbal na ko ministre de la fonction publique te li ñuy xaar ci moom mooy mu porter ko yóbbu ko en conseil des ministres ñu signé ko te ñu jublu ci liggéey bi.